waxtaane ki àndoon ak si sumuusi wa badru tëtimmati Mawlana Cheikh Ibrahima Fall ku ci laay wax tuuti rek jox sëriñ bi sëriñ bi na ma baal sëriñ bi dama ci moom ay mashahid Mawlana Cheikh Ibrahima Fall Baye Niass dafa wax ne awrif maqaam al anbiyaai wal maan li zal ubaydi yow yàlla yan na nga donnaloo jaam bi tudd Cheikh Ibrahima Niass makama yonenti ak wali wi yan nak len ko don lo suma xale yi dal jang bes dañu fogné ne Baye Niass dafay nekk tay musa suba yalla tokal makama bu mu Ibrahima gannaaw suba mu do Isa gannaawaat suba mu do Yuusufa wala mu do Yunusa Baye ñaanu loolu waxut loolu Baye li wax moy suma top mi top ma ne ci Ibrahima ne suma top mi ci mi ma ne ci yonenti yalla musa ne suma top mi top ma ne ci Abdul Qadir Jeylaani ne suma top mi ci top na ma amee ci abul yazid al bustani ne sama top mi ci top ne ci mamadou al ghazali borom ihya na nek ci bir top mi yaay yi ak awliya yi la baye wax ne nañ ñu ci sama kër nañ fi dëkk ci nañ bok ci top mi légui nak yeen ñëpp imagine leen li bëgg wax waji dekkon kebbe sëriñ bis dëgg ku ko waxal mbokkam ma xam ko adduna bi léegi laaja tudd tudd tur du ma tudd mbokkam waaye Cheikh Ibrahima Fall mi toog moom xam na ki maay wax ne ko damaa bëgg nga dëkkal si ma kuusi mu ne ko defuma ko du ma ko def fi nga ne lay fi courant bi nekk Medina Baye gii Kaolack gii lay ne du ma ne foofu Cheikh Ibrahima Fall nangoo dëkk si kuusi yow nasaqal xaatir ka waxoon ne rabbana inni askantu min zuriyati bi waadin ghayri zi zar'in inda baytikal muharram rabbana li yuqimu salaata fajal afidatan min annaasi taawe ilayhim maa ngi rafaal moo ma moo ma firiloo maqaamaam moo ma wax ci këram ci yooyoor talaata ci Medina Baye Mouhamad Lamine Seck mu bàyyi markadi Seck ngi toog ci jotaay ba ne ma keroog bi ma bàyyi waxee ñëwal Kossy dëkk si fi am na ci sama mbokk ñu ma ne doo ko doo wax ne ko na xaar ba nawet bi jeex ma ne déedéet léegi lay do bàyyi moo ko wax ne ko xaaral ba góob ba ba deqi ba pare door a ñëw maa yoro faal ne déedéet man léegi lay ñëw man bu ma sëriñ bi waxee dara faaleetuma tool waaye mu ne bi mu ñëwee dafa ne ko bi mu ko rëddalee kër gi ba pare daf ne ko sëriñ bi mu ne ah mu ne ko bu ma fi kenn wëllu ci kër gi bu ma fi kenn yërëm bu ma fi am njaboot guy wuuteeg yow loolu du may rabbana inni askamtu min zurriyati bi waadin ghayri zi zar'in kala rabb kala rabbul bariyati laay wax seyxu mu rabbi bi nga xam yu rabbi yu rabbil alamina wa jami al arwaax kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahima Fall ma ne moom rek moom rek moom rek moo am lu yéeme yéeme ci Mawlana Cheikh Ibrahima Fall ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu taala anhu beneen masab bi masab bi may nettali ci moom maam ma jëm Fall soxna si bàyyi la bi mu fi bàyyi koo yàggut waaye bi nga xamee ne sëtam Cheikh Ahmad Bukhari Niang ku ne xam na ne maa ngi moom ñooy ànd suba ngoonte mooy way jur yaayam mooy way jur yaayam moom la bàyyi yaayelee yaayam loolu laa bëgg a wax fàttewu ma ne yaa xadi faala ko jur Seyda Nafisa damaa toog ak moom ay yoon lii may nekk li nii wax naa ko ci kaw jumaa yi Baye Niass ji ci mbooloo moo xam ne Serigne Mamou na ngi toog ci biir jotaay bi Baye dafa toog maam ma jëm ne moo koy attaayaal am soxna su ñëw ci soxnaay sëriñ bi jàmbatal Baye ne ko diw lim ma wax hey diw Serigne bi netti li ba pare Baye ne Muna muna konop ko noppalekul wax jo xamne ne ko ci suma làmmiñ deggo ko ci làmmiñal minyukai te ma ma jëm mi ñu koy ne kutan Fall nekkutoon ca ba mune ne la wax jo xamne ne ko ci suma làmmiñ deggo ko ci làmmiñu Cheikh hibrafal deggo ko ci làmmiñu Fat Diagne Fat Diagne mooy yaay Serigne Mamoun way way soxna ci ñetti ñetti ñi suuf gëna waxuñ la dara waru la naqari mo waru naqari lo xamne ne du yag ba mo wax la ko du la ko wax Fat du la wax li xew ni cheikh ibrahim fall ci jamono dafa xew bu yag nar gànnaar dañ fe nek ba atam bi nga xamee ne maam ousmane baye ko na fi dat bi nak la fatte dat bi ma ousmane ndiaye mu mag ma wax sëñ daar ousmane ndiaye alallaama borom xam-xam bu ba sa cheikh misri bu ma atam mulaana serif bu mag bobu nga xamne baye wax nako sani wujudi te lolu bari wut ñum ko wax bok na ci ñum ko wax mom dafa ñew ci baye ne ko dama la doon taggu pour wër sa mbuqaddam yi waxtaan ak ñom man dal dama gis ne ñom seen tekkeral gi ak seen ñaka wax dara gi dama xalaat ñun liñ xam ak fi ñu ci xam-xam bi ñom xamuñ ko deg li ma léegi na lima wax baax a baax bàyyi ne ko mayna leen digal wër leen li la li tax nak mané leen bi baye alaaji bam Ousmane ndjay ba ci deewen sa la Cheikh Hassan Dem daf ci bok te Cheikh Hassan Dem ane bi seigne Ousmane ndjay gaañoo ci la ñew ci baye loolu tamit xale yi nañ ko yóbbaale sëñ Assane Dem Cheikh Assane Dem année bi baa Maam Ousmane Ndiaye gaañoo ci la ñëw nekk taalibe Baye ci la dugg ci loxol Baye booba sañ ci nañ Medina lu yàgg yàgg yàgg yàgg misiri mu ne muy war muqaddam yi ànd ak ay naar du moom kenn ànd ak ay muqaddami naar di wër a wër a wër ba pare del si ki baay bi ñaa del see yéemu lool ne Baye wër naa diw ah ko de natt nañ ko nangam wër naa diw natt nañ ko nangam war naa diw ah yow daal sa daal man ñu ne tekk jaaxal na ñi daal ay buxuur lañ niñ mel ci xam kenn mësu koo gis bàyyi ko mu ne waaw ko dem ci ku ñooy war Cheikh Ibrahima Fall misiri na ko déet àgguñ kooku ah kooku am na mu ko kooku am na na ko waaw kooku am na waaye yegguñ ca waaw bu sëriñ bi toogee ma door a yeggali wax boobu wax bi dafa am solo dafa baax ci ndaw yi dafa baax ci xale yi misiri na ko wër nañ ba na waaye àgguñ ci ki tudd Cheikh Ibrahima Fall li ma wax nii waxi bàyyi la ñu ñu jàng taarixi barki démb yi nag duñ xam li may wax li moom mag ñee ko xam bàyyi na ko àgg nga Cheikh Ibrahima Fall mu ne déedéet àgguma ca bàyyi na ko kun di alimta shay'an wa xaa wa xaaba anka ashiyaau kun di alimta shay'an wa xaaba anka ashiyaau su fekkee ne dem nga ci Ibrahima Fall demoo ci Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall àggoo ca moom mu ne ah mu ne ah kon de asiyëf rek nga xam ci gaañ yi kon de sa wër bi li muy bëri bëri ak gaañ li ñu leen wër wër lenn rek nga xam la rek nga xam na la damaa ko Cheikh Ibrahima Fall misiri mu ne mu solaat loolu nag mooy yoonam mu njëkk gannaaw bu mu ci bàyyi dem demati waaye dajeeg maa Ibra Fall moom ci jotaay keroo la njëkk moom kon bàyyi moo ko imlaa ne ko demal nga seeti Cheikh Ibrahima Fall moom fa la ñooy xamee asiyaa yi gaañ yi sëy rek nga fa mën a xamee ab lëf rek nga fa man a xam waaye boo bëggee xam asiyaa yi da ngay tase ak Cheikh Ibrahima Fall ma li xew léegi yag na bi ndeke naari gànnaar yag yàgg na ñoo foog ne ñun ha guñ ci maarif yak xabaraat yeeg léeb ñun dañoo fa dafa am luñ ci xam ak luñ ci xam misri mi mi mi ponkal mu mag mi al gharifun zani fi tariqati wal faydati mom la baye wax ne ko so waree muqaddami alimta shay'an asim bi rek nga xam waxaaba an ka shaw yëf yu bëree bëri réer na la mu dem Cheikh Cheikh ibrahim Fall waaye bañ fa bàyyi ko mu jox ko loxo ne sëriñ bi daal rek lu ne def na ko. mooy 1986 Baye Kabir Faye dafa gaañu Kabir Faye Gambie la gaañoo ñu ko rob gannaaw timis guddi guddi lañ ko rob commune Medina xam nga li wax. maa Ibra Fall ñëw ci xabru bi jàmbu xeebu bii tudd bi tey daw dugg ci jumaa ji lem fa benn basan man maa daw dugg ci jumaa ji lem fa benn basan ku ma àndatoon rek keroog nga xam ne lii maa ko def man li ma ñëwee de ko ci lalal suuf si mu ma déedéet fi suuf si sang bi la bu ko bu ci lal dara dede dede dede fi suuf si sang bi la bu lal dara daal di toog ci suuf ma tok ci suuf waye ma ma am ful la ko aglam ba pare ma gunge ko ak lam guddi guddi dama ko gunge ba kërëm mu dagg lay lay lay yu ma bëgg wax nak mo li dama daggaale ñu bari seenu lay mu ne Ibrahima jege ma dëd ko jégué ne ko maam ñaanal ma ba ko jégué mu ne ma xam xarit bu mag xarit baax mané ko ah mu ne ma cheikh ahmad tidiane mu bay ñes moy al khalifatul hali yalla yalla yagal ko fi tamay ko wer mu ne ma cheikh tidiane mi mana mu ne ma momat xarit lepp lu wax ci kabir fay deugal mu ne ma xam nga wax na ne kabir fay hagon na ci maqamam su rombe bant mu teud mu ne ko jogal ñu handi jaamu jalla bant bu wow lolu cheikh tidiane ñess wax setan len youtube yi delu len ci cassé bi ak bandi lima wax ni ngeen fay fekk yeen par cheikh dafa wax kero ne kabir ngi ni hagon na ci yalla fo xamne bu rombe bant bu wow su ko jogal ñu handi jaamu jalla bant bi dana jog xant ak moom ñu dem jaamu jalla may maay la fal nema cheikh tidiane ñes mi moo am wëllëre way lepp lu wax ci kabir deug la mu ne ma lepp lu wax ci kabir na ngeen xamne deug la mu tegal ma ci nema ma maqaamam tasaruf la doon junj ci kabir te dama ne ñaar ñaari ci bàyyi la ko jox mu ne ma boba sax wóoruma ndax bàyyi tarbiya na ko wala déet billahi wallahi talaay may rafal fal moom wax loolu mu ne ma bimu mu ci loxol baye ca déwén sa laa gi ci maqaama mi Cheikh Tidiane doon junj tey bi nga ko tegee ci penk jumaa ji mu ne ma te man sax boobu wóoru mën a Kabir bàyyi tarbiyaal na ko wala déet bu leen fàtte ne ba baam Cheikh Omar Faye dafa dajale woon njabootam jëm may ko bàyyi bàyyi xam ci ñum ci tànn téye xam ñum ca bàyyi ñi du wutoon Kabir rek ñëpp la leen mayoon mu ne ma ba mu ñëwee ca bàyyi ca déwén sa déglul de kii xam sax bàyyi maqaama yi xat yi mu koy joxe ak sa laa gi ci maqaama moomu te maqaama moomu biñ ca àgg xamal ndax li ñoy tuddé tarbiya def nako wala def muy ben mu ne ma doom mana ah, mu ne ma dama la gis nga daw ak basang bëgg ma koo lalal mana ah, mu ne ma sëriñ bi dafa wax ne liko taxas fonk suuf ci yonante yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam mooy mbagam jibriilu dafa yag diriku ci suuf sa moog mikail mu ne ma su fekke ñaari malaata yu diri seen suuf ci seen mbag ci suuf la bàyyi da medinatul munawwar ba naan uafiru xaddi inda mamsha muhammadin kon Ibra Fall nu mu war a def ak sëriñam keroon nag la ma wax ne ma keroon nag la ma wax ne ma turbatun ummirat bi dardaati jibrila maa mikaala ma xam ne kii moom kenn gënu koo jàng kenn gënu ëpp koo xam-xam loolu laa bëggoon a fekk ci xol yi ak xel yi keroon moo wax ci suma làmmee ñu ne ma turbatun ma ne ah mu ne ummirat bi dardaati jibrila ma mikaala bi mu fi bàyyee ko Alaaji Abdoulaye Niass wax ne wax na ko ne ko man lépp lu sa baay ay jàngale jàngale naa ko waaye sa baay fay waajoo xam ne lantinoor bu koy déglu rek la soxla mooy man man daraan wax may déglu